si mangin nuyu préfet du département de Koungheul monsieur Ousmane Nyan, di lu tewayam. di nuyu ki nga xamanteni tay mom mo fi tewal ki nga xamne ne le parrain fe mam Samba sek muy Adji khadi sek di suñu baay di suñu soppé di nuyu kelifa diiné yi nga xam ño tew fi tay di nuyu itam kilifa ada yi nga xam ño fi tew di nuyu bépp invité mais aussi di nuyu bu baakha baakha baax le conseil municipal dans son intégralité di nuyu ñi nga xam ne ñu fi téwal tay ñi nga xamanteni tay tey naalé bu président amé représentation fi mom la muy le préfet di nuyu nak principalement specialement sama yaay Adja Ndioufa Gaye di nuyu itam ma vie ma femme Fatou ñu am mbégte lool tey ñu am mbégte lool tey daje fii pour lu am solo lii nga xam ne moom leen fas yéene ñëw def muy inauguré benn yoon woo xamante nii tey ki ko fi defoon dëddu na muy le regretté Mame Samba Seck ma fàttali rek ne tali bii nga xamante ni tey moom la ñuy inauguré di ko ko jox di ko ko tuddee dañu delloo buum ci mbooy mbooy parce que tali bii kat moom moo ko fi indi woon moom moo ko réalisé woon ci magistère am leen ko réalisé woon fii ci Koungheul donc suñ ko ko tuddee dañuy jàpp ne loolu rek doy na comme raison mais nag dafa am yeneen yoo xam ne moo ci topp

donc kooku defe naa bu fi jógee war nañ ko jagleel loo xam ne turam du fay ba faw fii ci Koungheul parce que nag moo ko fi liggéey donc moo tax ñu sant ko gërëm ko gërëm ko bu baax ci taxawaayam bi mos am ci Koungheul muy koo xam ne mun nañ jàpp ne dafa jox leçon génération future yi bokk naa ci ñi nga xam ne dañ koy roy bu baax a baax ci doxalinam ak ci lépp loo xam ne moom la taxawee woon fii ci Koungheul parce dama gëm ne tey mënuñu def politique te bàyyi social mënta ne parce que nag mënoo nekk ci dëkk boo xam ne gis nga ne revenu bi faible na nit ñi am nañ ay jafe-jafe yàlla suturaal la as tuut nga ne doo ko bokk ak kon loolu mënta ne politique nag jàppalante la moom ci yoon woowu la nekkoon yoon woowu la ñu rëddal bi may mujj toog ak moom daf ne ma bis bu ñu fi élection fekkee local nga samp ndënd ne da nga bëgg danaa la jàppale kon tey li ma ko defal dama ko fay rek mënuma ko sax fay dama jéem fay ko rek di ko sant bu baax nag di sant aussi suñu papa aji xadi parce que moom it nag kenn la ci ñun taxawaayam ci Koungheul kenn naatable wu ko nekk na fi député am taxawaay lool ci askanu Koungheul kon bu ñëwee teewal fi Mame Samba Seck teemal fi famille Mame Samba Seck defe naa ne luy yoon la lu jaadu la ñu ngi koy sant moom it di ñaan yàlla mu yàggal ko fi wéral taxawaayam bu baax a baax a baax di nuyu bu baax aussi opérateur économique yi nga xam ne tey monsieur Seck teew na fii ci seen tur ñu ngi koy sant moomit it di rafetlu taxawaayam bu baax nag ci Koungheul parce que moom it kenn la ci Koungheul seetaanuñ ñu benn yoon ñun géewu politique bi ci lu ñu ne lu ne dina ñëw jël alalam jàpp ci pour gunge ñu jàppale président de la république donc ñu ngi koy sant di ko gërëm moom ci taxawaayam. di sant nag ñi nga xam ne tey ñoom ñun ak ñoom benn lañu muy ñi nga xam ne ñooy délégué wu marché bi les représentants du marché. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di rafetlu seen teewaay ci mbooloo mi fii di wax ne sëñ Tafa li nga wax dégg naa incha allah dinaa leen dalal ñu toog ñu waxtaan xool naka la ñuy defee ba suñu dëkk bi ñu bokk ñu jëmale ko ca kanam li ma bëgg a wax rek mooy na ngeen xam ne duma seen noon na ngeen xam ne bëgg a defar rek moo ma téye dama xër ci Koungheul am cofeel ci Koungheul loolu kese moo waral ma bëgg ñu defar te defar boobu may defit dama jàpp ne yéen laa koy defal mais du sama bopp kon degg na li ngeen wax bu baax dina ci bayyi xel dina fexe ñu tok ci téwaayu préfet mi tok ñu waxtaan harmoniser suñu position ngeen xam man yeen lay liggéeyal donc bu lolu wesso ñu ngi nuyu population bu kungal bu baaxa baax ñu ngi nuyu population kungal bu baaxa baax di wax ne au soir du 23 janvier da ngeen ñu fal pour ñu nek à votre service nekk à votre service nag mooy lan mooy fexe ba dëkk bi xar kanam bi ñu soppi ko fexe ba dëkk bi ñu yeesal ko fexe ba li nga xamante ni mooy suñu bokk moomee fi muy Koungheul ñu ànd defar ko ba incha allah ëllëg ku ñëw ci Koungheul kat dina ne wax dëgg yàlla Koungheul bokk na ci dëkk yi ñuy tiitaroo donc suñu yéene mooy loolu ngeen xamee ko noonu ngeen xamne ne Koungheul ñun ñepp ko bok té lepp lo xamne dem nañ wuti indi def rek pour jëmmal dëkk bi askan bi ci bopam moko wara saytu saytu ko xol ko entretenir ko ndax mu nekk lo xamne ne dina nekk lu durable lolu population wu Koungheul yëpp ma ngi di wax ne li ñu nekk di def yéen yeno komom ko mom donc ñu ngi leen di ñaan ngeen saytu ko bu baaxa baax ba nga xamne ne dina fi mëna yag nekk njëriñ pour askanu bu loolu weesoo tey dañu ne occasion la boo xam ne inauguration la certes mais dañu ne nañu fexe aussi parce que gis nañ ne coow li bëri na surtout ci wàllu camion mbalit yi ñu gis ne bëri na ñu may woo di wax ne camion mbalit yi mënuñoo yegg ci seen koñ ma jël ci sama bopp sama initiative bopp jënd ñaari camion ben à ordure yo xamné ñu 32 millions ma jël mettre à la disposition de la commune de Koungheul ma que, rek ne nonu wul ak dara budget commune dama bëgg mu du budget commune man mako def participation pour wa Koungheul ndax ndax lan au soir du 23 ni ma dañu ma wan ne dañu am yaakaar ci man dañu ma wan ne am nen ngëm-ngëm ci man jàppale ma fal ma palin boo xam ne amul benn naatable ba tax na man Alioune Badara du ma xaar benn yoon luy jóge feneen muy ñëw ci Koungheul pour nekk njëriñu Koungheul damay taxawu subaak ngoon di fexe nu ma taxawoo doomu Koungheul ba njëriñ di feeñ saasu ne ba yaakaar bi ñu amoon ci man saasu ne rek ñu koy jëmmal kon loolu laa bëggoon wax ci wàllu woowu di wax itamit ne sumb nañu ay liggéey ci dëkk bi liggéey yi ñu sumb aussi dafay mel ni lii rek dañu bëgg a jëmmal suñu dëkk wane ne Koungheul kat daf di dëkk boo xam ne dafa war a jëm kanam te bu dëkk di dem kanam dafa am lu am solo loo xamante ni waruñu ko négliger muy lan muy aspect cadre de vie mooy nit ñi dëkkuwaay yi nga xam ne fa lañu dëkkee dafa war a méngoo jamono pour mu nit ñi mën di dund dundin boo xam ne dina ànd ak wér dina ànd ak sell dina ànd ak lépp camion bi bu ngeen ko gisee li ñu ci def mooy Koungheul ville propre bind ci suuf ñaari slogan rek la mooy Koungheul na set beneen bi ci topp mooy alin ba dara jaamu Koungheul la kon xale bi gën a tuuti ci Koungheul ba ci mag mi fi gën a mag ci dëkk bi ñépp ñoo xam ne ñu ngi ci diggante bi ba dara mu ngi ci seen service suba ak ngoon guddi ak bëccëg ma sant nag askanu Koungheul bu baax ci taxawu bi ñuy taxawu mais ma ñaax leen ci gën ñu ñu gën ñu jàppale ci liggéey bi nga xam ne sumb nañu ko nañu xam ne li ñuy def ñoom ñoo tax ñu def ko ñu jàppale ñu gungee ñu ba nga xamante ni dinañ mën a yeggali li nga xam ne njëriñu askan bi kese la di nuyu aussi bu baax nag kenn ci ñun koo xam ne man dama ko tuddee le médiateur social muy suñu tonton suñu papa Ada Camara tonton ada bu xeye mu ngi ci service su Koungheul bu xeye mu ngi dox di ñaw digënté yi donc suñu téwé ci melni préfet tok dama ko koy témoignal mu xamné ki kenn la ko xamné ne bu ñu amoon fukkam ci kungal defe naa ne tey Koungheul romb na fi mu ne ma nuyu aussi monsieur le maire sortant di le secrétaire d'État kamara mi nga xamné amone na yéné téwé ko mais dafa am gante di nuyu itam monsieur Madiama Seck di maire Ribo amoon na yéene ñëw mais dafa am ngànt Touba yónnee na ku ko teewal maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax di nuyu itam bu baax a baax madame la présidente du conseil départemental de Koungheul madame Socé Diop John di sama yaay mais aussi di sama xarit moom it maa ngi koy nuyu bu baax di rafetlu liggéeyam fii ci Koungheul di sant nag responsable politique yi ne ci gox bi yëpp di leen wax ne Koungheul moo ñu boole nañu ànd ñun ñëpp joxante loxo pour le bien-être et le devenir de Koungheul maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant aussi la presse bu baax a baax fi ñu taxaw ci naaj bi métti na ñu ngi leen di masawu bu baax di leen sant di leen gërëm parce que lii ñuy wax bu génnee fii yéen yéen a ko génnee kon yéen dañ leen yoreel cant ak ngërmande di nuyu aussi honorable Fanta Sall bu baax momit dafa am empêchement parce que dafa tukki mais yónnee na délégation donc mam Mama job mu ngi fi tew di nuyu aussi wa pôle emploi ñomit it nen vraiment daja darajaal bés bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant di wax nak né mention spéciale à l'entrepreneur monsieur Mbaye Ndiaye qui va tout à l'heure nous montrer ce qu'il a fait ak nim ko defé donc ma ngi sante ñep di gërëm ñëpp jërëjëf te jamm mom lañ bëgg fi mom lañ bëgg fenen kon préfet ma ngi lay nuyu yaak service yi nga andal yëp di nuyu maire maire bu baax bi maire bu am jëriñ bi yalla nga yokku ta andé wér badu yow de bëgg nga ko ngëm ñëwuloo fi pour yóbbu da nga fay ñëw pour loo defal waa Koungheul lu oto bii ku ko gaare ak leneen ak leneen wax dëgg yàlla waa Koungheul yi mënuñ la fay yal yàlla fay Badou yàlla na yàlla fay yaa xam li nga bëgg si baax yaa sa yàlla ko sama borom def te man nii ko ñaanal ku la ko héene laa te su ma ñaan nag bul ko xew ndax fi ma bokk moo tax maa ngi lay ñaanal yokk bu yëg te soo yokkee ku ngeen ma dem nag si bis bii ñi ma àndat neexu ñiy lim ndax Koungheul yëpp ñoo fi taxawal Maam Samba tey mboolem ñi ne si mbaar amul xajji amul seet su ma limee Moussa waaye mënumaa limal ñëpp ñëpp Maam Samba lañ ci daal ndax mbaaxam Mam Samba lu bax lu ne def na ci dëkk kon suñ ko tuddé dara kon mel ni ñun fami bi ñoo ci gëna tutulé ta man li tax ma contane ci tuddé bi ku fi jaar gis ko ñi ne mam Samba lañ ko tuddé yalla yalla yok léram man nga koy wax te loolu am jëriñ la ñaan buñ ko xeeb te ñu fee jaar yëpp dañ ko ñaanal kon lolu Mbadou ma ngi la siy di la sant di la wax ne soxnam doon ni ñew baye ko Dakar awlum otoom ya këréwe ki mu du chauffeur mënul dindi sax pneu bi muy sama do ma Samba du chauffeur mënul dindi sax pneu bi ñi ngi ci all ba toog Moustapha Gadiaga mu wax ko ndax ñoo ñep nit imam Samba lañ kërefé fekkante wolo fi ak Samba waye fekkante wolo ku baax ku am njëriñ maam Samba day toog ci buntu këram 9h ba minuit joxe rek lu mu am joxe lu mu am joxe dëkk bii bi fi nee maire lu baax lu ne def na ko tali bii ci ayam la garage bi ci ayam la lim ayam mairie bi ci ayam la li aye Sénélec bi ci ayam la loolu yëpp mën ma koy lim ku baax la ku bëgg lu baax yàlla ko xippee àjjana ak ku ko ko yéene maa ngi gërëm waa Koungheul yëpp ci nga nu barab bi yëngatoo bi ma jëlee micro bi du man maa tax ñu yëngatu maam Tamba tax ñu yëngatu ñoom ñëpp maam Tamba seen xel man taxuma de maam Samba moo tax ñu yëngatu te man nañ fee ne ba suba bu duutoon ka fi mii toog di yëngal place bi rek ndax maam Samba maam Samba yàlla na yàlla yokk leeram maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. ah ñu ngi nuyu monsieur le maire di nuyu monsieur les conseillers et madame les conseillères de la mairie de Koungheul. nous sommes le chef de service de l'urbanisme mu nous toog ñu aussi monsieur Elay Alunsek Alioune Seck moom représenté le parrain du jour nous sommes aussi les opérateurs économiques nous sommes aussi euh, les imams Nous ngi ñëw nous population congolienne di rafetlu vraiment population bi la fee ñu ñëw fekkee fii inauguration place publique bo xamné monsieur le maire de la commune de Koungheul moko def. lolu ñu ko ci remercier bu baax a baax diko féliciter bu baax a baax baax parce que lolu dafa fekk dafa bok ci compétence yo xam ne dañ ko jagleel les collectivités territoriales. mooy wàllum alam bi et wàllum cadre de vie bu ñu waxee alam bi mooy l'environnement et le cadre de vie parce que loolu dañ leen ko jagleel ñoom parce que ñoom dañu fekk ne ñoom dañu ñam dañu nekk benn bànqaas boo xam ne état yi moo leen dénk ay compétence yenn moom dafa am cër bu am solo bu muy jouer ci wàllu état moi, le code général des collectivités territoriales les maires sont responsables du développement économique et social et sanitaire de nos localités. depuis qu'elle est là ma donc si lolu ñu koy di gërëm bu donc Limu def tay teureum le mais aussi da ko def pour population de Congo, parce que aussi population bi ñoo ko fal moom dafa am ñaari casquette dafa am une double casquette moy il est le représentant des populations il est en même temps un témoin de l'État du Sénégal suis politique bu fi état tek je xamné ne day jëmale kanam askan bi mom da ci war duggal loxam bu baaxa baaxa de a gis nañ ko depuis qu'il est là ñu ngi ñaan donc askan bi ñu jappalé ko ci loolu pour que kungal dem kanam parce que kungal kat man je suis de Dakar mais kungal amna tour parce que dañ koy dégg ba Dakar né do ñëw fi amna label parce que kuy voyager fi rek di nga wacc lek ci dibi kungal yi loolu dafa am solo parce que loolu la ñuy wax le marketing territorial loolu day tax ëllëg yeneen ñoo xam ne dañuy bëgg a investir ci biir Koungheul ñëw te duñu ñëwee gis réew mi walla dëkk bi mel nii am beneen alxar kanam boo xam ne taaru na dañuy gën a am sawarte pour mun a ñëw toog fii ci Koungheul di loolu ñu ngi ko ciy incité lii ci l'un des projets yoo xam ne moom la fi commencé parce que moom aussi ñu ngi koy remercier am na disponibilité boo xam ne saa yi bu mu ko oowee da ngay wuyu saa yi bi mu ko oowee mu nekk fii aussi day ñëw. Des souvent s'il a des problèmes dans le cadre de ces projets de ñëw n'a pour ñu xol naka la def ba projet yoy yi mëna taxaw fi ci Koungheul li premier projet bi ñu ngi la ci sant la gërëm parce que aussi inaugurer place bu melni ensuite nga def remise des camions qui vont ramasser les ordures de la commune de Koungheul lors dafa am solo parce que ramasser des ordures wax problème de santé publique des askan bu amé wër rek daanaka leneen liñ ciy teg yëpp day jafe day yomb si askan bi loolu aussi ñu ngi ko siy gërëm bu baax a baax a baax a baax am na yeneen projet yoo xam ne sumb na ko da ñëw na di ma gis moo tax projet yi nee naa ko monsieur le maire dee ci impliqué population yi parce que projet yi pour askan bi la il faut projet yi aussi askan bi adhéré aussi population yi adhéré aussi projet yooyu moo tax souvent day ñëw gis ma ñu toog waxtaan du dee dafa am ñoo xam ne de projet bi dañ leen laal ñu ñëw toog waxtaan ak ñoom am na beneen projet boo xam ne am na solo fii ci marché bi ñu ngi ciy dox ba vraiment harmoniser position yëpp ba ñëpp gis ci seen bopp projet boobu taxaw leneen lu may wax parce que du ma guddal mooy euh, projet de voirie bees yi nga xam ne dañ ko defar fii si Koungheul loolu aussi dafa am solo lool mooy voirie communale bi wax naa ko léegi parce que aussi def projet yoo xam ne day day day am ay gàllankoor si askan bi loolu taxul projet jóg parce que route bu bees bu ko defaree deful ñu ci ay canalisation dañu ngi xool entreprise bi lay ñëwee fii pour ñu lijjanti loolu loolu dafa am solo

pour askan bi la jàppale askan bi la loolu la amoon lu may wax bañ a guddal ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam jërë ngeen jëf merci beaucoup